Ah, Oke, kay léegi ñu aloe vera ini di e, nice maaleykum daaray Linguère maa ngi nuyu ñëpp di leen di leen di ñaan yàlla nangu ñu suñuy koor yokk si ay téeméer téeméer incha allahu ziare naa ñëpp tey na dañoo indi aloe vera ñu ñuy defaree aloe vera huile ñu leen ko woon bu ngeen xoolee bu ngeen fàttalikoo euh, émission bi ñu def si naka lañuy def defaree huile de coco koko de coco baa nekk nii moom la ñuy jël euh, toggee ko aloe bi pour am aloe vera bi aloe nag dafa bëri njëriñ lool sax macha allah. si ñi nga xam ne dañoo amee acné ñi nga xam ne dañoo am problème mu peau bu fekkee ne da lakk tamit baax na si trop macha allah donc léegi ñu ngi si ñu waajal process bi li ngay njëkk def mooy dagg sa aloe xolli ko. te aloe vera bi mu ngi ko jël. tey surtout si góor ñi moom baax na trop si góor waaw macha allah tey yokku kàttan boo ko jëlee nga di ko lekk noonu def ko si sa pot ndox dina di ko naan lekkaale aloe vera bi baax na trop macha allah li ñuy def dañ koy xoole nii ndaxte ñambaa ngi ci biir ngeen xoole lii lépp wuñ ko te man kon damay eh, defar aloe vera bi may def mooy damay xoos lépp duma bàyyi dara ndax diw laa si soxla waaw diw bi nag mën nga def si sa diw bopp sa diw yaram ndax aloe vera tamit njëriñam bokk na si bu fekkee ne tey jii nii chaleur bi si biti naaj muy tàngee noonu day protecter sa peau nga bañ a lakk. Mm-hmm. wish I knew that right. Went on that summer trip. Like I told you that when you got back, didn't I? Yeah, well, that's what Grandma used. A little medicine. Yeah. Ah, let me walk me more than one bimu deme eh, fale uh, Disney. Uh, yaram bi dafa lakkoon ndax naaj bi nga dañ def ne ñun nit ku ñuul bi soxla wuñu ñu <laughs> protéger suñu suñu yaram yi mais soxla nañ ko daanaka ba mu ñëwaatee nag li ñu mujjee def pour delloosiwaat couleur pomme dañ ko mujjee jël aloe vera bi di ko def si yaramam ba macha allah yëpp mu delluwaat normal ñaata semaine la la jël. ñaata temps la la jël pour mu um, um, I don't know probably took like seven weeks like probably a month. It was I knew for sure. Wow, Here's the thing when we put it on there, mm -hmm. it was like it stopped the hurt like wow, for hours. It it was not hurting anymore, but you can still tell that my skin got burnt. waaw waaye naaj bi moo ko lakk parce que dafa yàggoon si naaj bi température naaj bi nag bu ñu ko lakkee nag. yeah I think we was out there like for at least five hours. cinq de temps la def si naaj bi. am more kon li ñu naan Sénégal naaj bi daa tàng boo toogee si naaj bi lu yàgg nag moom xam si ngay def <laughs> ko looloo ko dal ba nga xam ne aloe vera bii utiliser pour. Euh, non yaram bi. soogay liggéey laa mënul moo tax kooku ma jóg waaw ah, si xoolee lagi damay jël euh, oh, But grandma had it worse. Hers was like peeling off. It was burnt. mooy dañoo té tamit boo bëggee saxal sa yéene hmm. ak au lieu que ngeen di teg kii ngeen di teg si seen xef yi xef eh, yi tamit par guddi li ngeen def mooy da ngeen di jël aloe vera bi pendant trois semaines di ko def si seen yéene ak ngeen am castor oil mais castor oil wóolu mën a am na xoxam de mais boo ko jëlee aloe vera bi nii di ko def si sa karawu yéene mhm. ak si sa xef yi da gis ni daf koy saxal. but it's going to dafay um, baax sa def kon ñi nga xam ne seen karaw dafa xaw a oyof. yeah very thin. waaw nga jël aloe vera bi di ko si def da ngay gis différence bi dinaa leen woon ah, incha allah beneen produit te lépp lu ngeen lu leen jaaxal lu ngeen soxla ñu dugg leen si YouTube bi abonné leen laajte leen question yi incha allah ñun loolu lañ ci nekkee jàppalante. pour wanante lépp loo xam ne am nañ ci xam-xam buñ ci amulee xam-xam ñu gëstu ko incha allahu rabbi. ah ok. <laughs> aloe vera bi moom mu ngi noonu léegi defar nañ ko lépp ku si des man diw naa ko sama yaram wante du la def dara waaw lii nag euh, genre gën la te kon xam nga def bi ñu nekkee am ñu gën muñ fay nekk di déglu kon li genre kànde la bu day oh, métti fekkee ne gën a nag ngeen di utiliser dagg leen ko ba mu gën ndaw nga xam di ngeen ko mën a dëbb Thank you. ma wax rek bu ngeen amulee gën daal ameen bu ngeen kon fii moom ñun amuñu gën man ko amuma gën mais li diw sama yaram bu ngeen xoolee gis nga dafa mel ni ki diwuma dara sama yaram te lii dafay daf may protéger si naaj bi nga xam ne am ñetti façon couleur peau fii xees <laughs> so donc dafa baax trop si yaram baax na trop si yaram macha allah te ñun diw bi ñuy def dañ koy booleeg suñu diwu carotte bi di ko diwoo def ko si suñu diwu bopp bi incha allah. waaw léegi def nañ si diwlin bi diwlinu koko bi ñu defaroon keroog moo nekk nii moom lay sotti fii voilà léegi dañuy sot suñu aloe vera. beneen beneen cin bi moom bii mooy sama toogukaay. laa defaree woon koko bi moom laa defaree beneen diwlin wala on kat gis nga li nga li nga defaree ko sa kat léegi nag même process bi la dañ koy togg bu ñu ñëw day jël temps lépp lu ngeen def moom ngeen amul temps pour def ko rek eh. xaar eh, leen doo am ko parce que process bu ngeen bëggee lu baax moom day jël temps. どうぞ。